ni ñu ko baaxoo defee at mu jot fii ci kër sëñ Amsatu mu Cheikh Abdoul Ahad eh, feggoo fi ak Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke yaakaar naa ne ku ñun xool image bi danga xam ne yàgg nañ ko bàyyi xel waxtu ne waaye itam nag mu am xaas ci bis bi nga xam ne moo di bisu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tawfeex ju rëy joo xam ne sun borom moo ko xaasale woon ci diggante yaari way juróom yooyu lu bari ci seen digënté mu doon kon ndaw la ko daan dox mu ñëwit nak di jokk bokk gogo ak kolere gi taw fi ci kër seigne am rek ñu taatan ci kaddu yo xamne dañ ko ci mëna dem bokk bokki yi ñu seetaan yépp di nuyu mboolem bokk yi nga xamne ñom lañ fi dajeel fi ci kër seigne am sutura mag di nuyu mboolem jowatu seigne abdou rahab gépp di di len siyaare ci bis bii nga xamne ñoko bokk di jagleel ab nuyu na seigne am sutura mi nga xamne ci lañ nekk ci kërëm muy seigne kolere bu wër bu yagga yagga di suñu xarit bokk yi soog a ñëw ñëw di ko siyaare ci bis bi euh, ci bis bi nga xam ne bisu suñu euh, sëriñ la di suñu waajur waaye nag yàlla tawfeexal na ñoom mu doon suñu xarit mm-hmm. euh, muy sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mm-hmm. di bis boo xam ne bisu ku jàmbaare la woon mm-hmm. te bëggoon sëñ Touba di bis boo xam ne ki ki ki fi nekk ku fi ku fi ne ci Touba wala nga ne woon ci yoon wi rek xam nga fi mu fi mu tegoon sëñ Touba xam nga ni mu doon suuxate yoon wi xam nga ni mu defoon njabootu sëñ Touba yi ci loolu la ne woon xam nga ni mu defoon xasida wax ne wax wu mu ngi ci jàng di xarifa gi diis diis bu du set lim ci kenn xamul lim bi lu mu toll waaw bu wéetee bu tëjoo bu wéet bu ne ci néegu mi ngi ci nga xam ne noonu la meloon ci mokkal ci loo xam ne yaakaar naa ne kenn xamut ko koo ci raw ci mokkal mm-hmm. kon nag eh, bisam bi bu ñëwee xéwal la ci ñun ñëpp mm-hmm. eh, ci la ko ci sëriñ bi fàggul mm-hmm. ak la mu waxoon ci moom dañoo ñëw rek ngir taas ci barke boobee nga xam ne ñun ñëpp mën nañ cee jëriñu moom ndax ku ne xam na ni sëñ bi nee na ko woon am naa ci yow yaakaar te yaakaar ji it ku ne xam ne tasut mm-hmm. ndax yaakaar yi sëñ moom du tas sax mukk ci mm-hmm. kon nag yàlla na ko yàlla fayal mm-hmm. yàlla na ko yàlla ngërëmul sëñ Tuubaa doon sàkku diiru dundam benn benn itti la moom mooy bi waaw te da ko daa sëñ bi rek na ko yàlla gën a dolleel rek muy yokk ginnaaw yàlla amul fu mu yem yàlla na yokk rek ku ne xam ne am na ko ndax musta atliku <laughs> kon nak yalla nako yalla fayal mm-hmm. bu ko dee am ñi ngi feddali couleur gi te diko japp bu baax a baax te diko ko ci xol ah diko ko ko wax ci wala miñ ah, tay ñaan ñi yag ñew yag la fee fekk mm-hmm. ah, ne ne ma ko waxee suñu digënté yag na lool mm-hmm. kon nak yalla nako yalla nako suñu teyel rek ah, te dëggal ci suñu yaakar waaw Euh, ku baax la te mën a jëflante ak bokk yi waaw euh, kon nag euh, yal na ko yàlla gën a dimbali mooy ci barke Serigne Touba nga xam ne mooy mooy lépp ci sunu kilifa sunu mag Serigne Hamsatou Mbacké Cheikh Abdoul Ahad ñu ñëw fii ci bis bi ñu bokk di bisub sunu sëriñ di sunu kilifa di suñ lépp di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na suñu borom loolu lay leen tataa suñu ci barkeem muy bis boo xam ne nag bis bu màggale ci lislaam ndax bépp bis boo xam ne doomu Serigne Touba feeñ na ci rek doon na sëkk ak màgg rawatina nag bis bii nga xam ne ci la sunu jàmbaar jooju feeñoon te ki waral lépp njëkk seere ci moom muy Serigne Touba wax ne am naa ci moom yaakaar yaakaari Serigne Touba nag yaqin la mu wëlbatu kii di wax ne képp koo xam ne mën naa tudd aw turam rek sa yaram araam na sawara waxaatit ne fekku ci jamono kooku gën kon loolu doon sëkk seere ci moom muy jëmm joo xam ne lislaam jëpp ameel nañ ko njukkal ndax képp koo xam ne yaa ngi yewoo ci dëkk bi walla Sénégal wala li lu bari ci àdduna boo gindi ko xàmmee tere suñ borom bi ak i digleem ci moom la ko yàlla jaarale kon Cheikh Abdoul Ahad mu jaddit la doonoon jëmm joo xam ne itam dafa jëlam jël léppam jébbal ko Sëriñ Tuubaa ba fàtte boppam fàtte njabootam dara mosu ko itteel lu mooy Serigne Touba waaye Serigne Touba fay na ko ci ñoom fay na ko ci jëmmam ndax ba fii mu ne fu mu tuddee ak turam demee Cheikh Abdoul Ahad fi kenn mënta wax wax jub ba wax ji jeex te delloo leen ci ay waxam kon loolu bokk na ci li ko suñu borom jagleel Serigne Touba defal ko ko muy xam-xam bu sell te leer kon ñu ngi ñaan bis bii la ci Serigne Touba daali woon rek. ñu daje ca moom te ci am positif te sellal ko te dugg ci rek di siyaare itam suñ kilifa bu baax di sëriñ Hamsatu di fedd li ni mu ko waxee rek diggante Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Abdoul Khadir ndax ñu ngi waru roy kenn ku du ñoom ñoom rek lañu war roy mënuñoo àgg ci ñoom nag da Cheikh Mamadou Fadil Mbacké waxoon rek duma kooka te ñooñu duñ ñii waaye sëñ na ma roy ñu itam nag nañ gisoon ñoom ñu ni ànde foofa rek la ñu war a tànk mooy ku ci gis sa moroom jël sa kilifteef jox ko jël sa xol jox ko jël jox ko ñëpp nag loolu lañ fas yéene ànd tamit la Serigne Touba ñu ci dimbale ndax ku ci gis sa moroom rek Serigne Touba da daal def seeni xol dëppoo loolu nag lu Serigne Touba fàggu ci suñu biir la ba mënuñ ko dindi parce que yeneen sàmm moom mii nag di Serigne Hamsatou suñu diggante dafa yàgg ndax nii ma def nii. yendu fi màggal gi ba bis bu jeex ma ko tàmbalee defal léegi man ëpp na ñaar fukki juróom yoo xam ne fàttaliku moom fu mu jëlee kon loolu du kóllëre démb du kóllëre tey loolu nag yàlla def na yoon moom képp ku ci sa kilifa rek moom du xool nu muy ànd ak yow waaye yaa war a xool ni ñu amee cër boobu ci moom ba tax mu jaral ñu ko ci jikkoom bi ak doxee te ñu gis itam ñor gi ko yoon ñor. suñu mag bi Sëriñ Tuubaa damay sant rek sëñ Basiiru mi di suñu rakk di suñu xarit di nit ku baax ndax baax weesul mën a muñ ay bang-bang te yàlla dimbali ko ku mën a muñuy bang-bang la man nag lu ma tëri la ku muy liggéeyloo day bari yum fot ci sa ci sa xel wala ci sa xol ba tuddee ko kon yow sëñ bi fóot na yu bari soxal ku bari njëriñ nga ku gëm sëñ Tuubaa nga tamit ndax yow nga ci ay cër équipage yoo xam ni mën naa tax nit bew wala mu manque respect kilifaam te loolu defoo ko loolu ndimbalu yàlla la ñu bind loolu nga xam ne yàlla dimbali na ko jagleel na ko liggéey suñu Abdou Khadre la maa jàpp ne nga bokk ci ñu koy motli ndax moom wàllu àdduna yëngu ci dara ci jàkkaa ji lañ ko xam ak ketoo yi ak alxuraan wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala